nag li ñu gis. bu xew fi gendarme pare na ba jël enquête mbir bi ba jox ko procureur. yaakaar ngeen ci procureur boobu. justement yi ah j'espère seulement que pour la stabilité du Sénégal la stabilité sociale du Sénégal. Mhm. duñu taal Sénégal xam nga lu tax euh, il faut que le droit se lise il faut pas que ñuy fowee nit ñi di utiliser la justice di xeex. des opposants politiques il faut que loolu mu jeex Sénégal dañu war a am une justice équitable une justice bi nga xam ne euh, damay am confiance dem am sama problème yóbbu ko fa mu leer ma ni danañ ko teg ci yoon une justice qui n'est pas instrumentalisée par le pouvoir exécutif or liñ fi gis mooy lan ñépp ñi nga xam ne yoon topp na leen ñu ànd ak président Macky Sall je prends le cas de Bougazali qui a quand même détourné euh, utilisé lu garaaw muy des faux billets ñu dugal ko génnewaat ko tey mu nga ne toog këram di naan ataayaam loolu dafa ñaaw des gens yu nga xam ne dañ leen épingler dans des dossier yoo xam ne xaalisu Sénégal lañu nax saayal kenn jàpp leen parce que le président lui-même nee na moom moo teg kuddam ci dossier yooyu daa veut dire que coude sur la justice donc nag ñu ngi ñaan. encore une fois les magistrats de ce pays di ñaan yàlla procureur yi di ñaan yàlla ñëpp ñi nga xam ne dinañ intervenir à un moment ou à un autre ci dossier bii ñu xam ne l'heure est grave et que la stabilité du Sénégal est en ñu bañ a nag def une justice de Mademba ak une justice de Massamba ndax lu lépp lu ci mën a am rek dinañ ci am seen responsabilité te l'avenir du Sénégal est en ndax tey xol yi fees na euh, jeunes yi ànd ak ñun ci projet bi ñuy porté seen xol metti na parce que tuuma dafa foor sosal nit si loo xam ne defu ko ba pare bëgg koo jaay doole tëj ko utiliser sa ay journalistes yi nga xam ne il sont à sold solde pour comploter colmater euh, des contre-vérités non excuse-moi tu n'en fais pas partie ah. toi je te respecte énormément mais mais may ma rek ma rek ma wax la ni euh, tu tu sincèrement j'admire ton courage et je respecte beaucoup ton travail d'ailleurs j'en profite euh, parce que su ma duggee si sa émission di gis ma mbokk patriote yi di am lu ñu lay wax dafa may metti parce que nag euh, je sais que tu fais ton travail et il faut une presse libre qui qui représente le peuple qui nous yi nga xam ne ni euh, peuple bi moom la ñu war a poser ñu mën a tontu loolu c'est une chance que vous nous offrez donc on vous doit beaucoup de respect mais à côté de vous jàpp mais y a y yoo xam ne tey ils sont à la solde de ce régime. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi non ñu ngi def loo xam ne ñu ngi non non c'est c'est pas leur boulot qu'ils font ils font le sale boulot ils font le sale boulot te dañu war a xam ne. Sénégal moo nekk un jeu du ay intérêt benn nit c'est-à-dire ce qu'ils ne comprennent pas c'est que Ousmane Sonko aujourd'hui représente l'espoir de beaucoup de gens des centaines de milliers de jeunes yoo xam ne dañu désespéré mu nekk une lumière qui est née qui cristallise aujourd'hui l'espoir de beaucoup de gens on ne peut pas lever di leen faagaagal di comploter di yàq seen der ñu toog di xoole dafay dafay dafay dafa dafa délicat leur est il faut que chacun en toute responsabilité que ce soit les ju euh, la justice que ce soit l'Assemblée nationale bi nga xam ne tey euh, ils sont en train de de de yëkkati euh, immunité par voilà parlementaire président Ousmane Sonko kenn ku nekk si ñoom mu xalaat ni ëllëg lii dal président Ousmane Sonko tuuma. mais c'est sur sa demande aussi moom moo def. conférence sur sa demande. moom moo def conférence de presse. non non non c'est pas aussi euh, dañu yëkkati immunité parlementaire en plus en tant que député aussi dañoo war a yëkkati aussi immunité parlementaire ba aussi. mais mais mais mais xam nga xam nga wax jooju dafa. dafa dafa waaw non non non non xam nga kaay ma wax la dara xaaral ma wax la dara euh, nañ jël histoire récente rek Sénégal depuis président Macky Sall nekk non nañ jël président Abdoulaye Wade. le président Ablaye Wade benn nit la mës a yëkkati immunité parlementaire am muy kan le monsieur qui était en Arabie Saoudite et si ñoñam la bokkoon il a levé l'immunité parlementaire d'une personne ku bokkoon ci moom bañ ko indilee sax ne ko euh, pour euh, Moustapha Niass je crois dafa ne déedéet c'est un opposant duma ko def di def un précédent président Macky Sall bi mu ñëwee ba léegi il a levé l'immunité parlementaire de ses opposants Omar Sarr euh, Baldé Ngom tey jii président Ousmane Sonko. mais ñoom ñëpp woo. Barthélémy Diaz non Barthélémy Diaz non non non non Barthélémy Diaz. même Bougazali même bi nga xam ne dafa def lu ne léegi ñu jàpp ko flagrant délit ba mu waree lever immunité parlementaire am daf ko wax pour mu démissionner donc ça veut dire que encore une fois même à l'Assemblée nationale il manipule. la loi et les institutions de ce pays pour def lu leen neex et c'est dommage mais si levée immunité parlementaire boobu daa bëgg ñu wax euh, Khadija Euh, Ousmane Sonko euh, bu ñu lever immunité parlementaire parce que gis nañ ne dafa tàmmal aussi euh, sénégalais yi rawatina sa mbokkam yooyu député yi féetoo au niveau de l' assemblée nationale heure bu ñu ko ooyee si commission ad hoc yooyu rek du nangoo dem parce que on l' vu avec cette histoire de quatre des quatre vingt quatorze milliards de francs CFA bu ko liyoon ak kii di Mamour Diallo est ce que donc cette histoire aussi yéen ñi nga xam ne yéen a ko jege doo leen ko conseiller aussi pour mu wuy ji pour sa propre pour son oui parce que gis nañ à chaque fois ñoom bi ñu ko ooyee si yooyu du du du ci perte de. cette euh, fois-ci. non l'affaire est différente quand même on l'a appelé sur l'affaire des 94 milliards d'amul la loi doit s'appliquer quelle que soit la situation. Mm-hmm. l'affaire des 94 milliards le président Ousmane Sonko li mu leen wax dafa leer j'ai déposé un dossier qui est pendant en justice je ne vais pas déférer parce que lorsque la justice est en ébranle l'Assemblée nationale day xaar. donc woo ko foofu amul woon sens. mais pour cette non mais cette fois-ci c'est amul woon sens foofu amul woon sens moom la ñuy lever immunité parlementaire dañ koy woo pour lan pour mu dem déglu no ça n'a rien à voir on est dans un autre. Euh, on est dans un dans un dañ dañu ñoom ñooy mettre en ébranle seen machine pour lever immunité parlementaire au président Ousmane Sonko donc c'est lui l'élément étranger. dans cette dans ce, dans ce qui est en train de se jouer moom la concerné mais indirectement c'est pas à lui de jouer dina dem foofu pour lever propre immunité am loolu ça n'a pas sens du fa dem moom lever propre immunité am du ko def mais pourquoi pas du dem dëggal boppam du ko def danaa dem di yëg la ñoom il sont la majorité <laughs> bu voix comme ils disent toujours ñun suñu ay voix ñun opposition mu yokku ci ak mu wàññeeku ci changé wul dara parce que ils ont majorité bi ñuy réclamer wu mécanique entre en plus de ça man ce sont même pas des députés on député d'avoir des députés comme ça c'est des gens non c'est des gens yu nga xam ne tey euh, ñoo ko waxaa man waxuma ko il son à la solde de Macky Sall ay député Macky Sall lañu mm. cest à di dañu nangu tey peuple bi votel leen teg leen fi élire leen ñu dem war koo doxal nekk ndaw réew mi ñu ne déedéet maa bañ man député Macky Sall la lu ma wax laay def lu ma waxul duma ko def. d'accord foofu la ñuy woowee ni tey. Mhm. l'instrumentalisation de tout tout tout ce pays dans tous les domaines l'Assemblée nationale la la la la justice la police war na arrêté ñu tëddee njaaxaanaay nag te xam ni dëkk buy dox di dem. war a une démocratie mhm. saine dañ ko war a baser sur l'indépendance de tout tout tous les corps assemblée di jouer son rôle la justice di jouer son rôle exécutif di def rôle ñoom ñëpp dans une parfaite harmonie ku nekk boo doxalee sa yoon justice day toog équitabilité euh, équité day am ci réew jàmm day am te kenn mënul lal jàmm ci lu dul dëgg te tey dëkk bi doole lañ fiy jaay jàmm amatu fi ñi am jàmm toog sax da leen a gënaloon parce que xam nañ ni bu ñu waxee ñu xëcc leen génne leen seen dossier yóbbu leen police yóbbu leen prison salir seen honorabilité donc dañu toll foo xam ne on est dans un régime policier on est dans un régime bu nga xam ne mais s'opposer devient un crime mais pourquoi dans une démocratie normale dafa war a am une opposition forte am l'exécutif buy doxal opposition bi di opposé wu une presse libre et indépendante raison et honnête. tu peux dire di wax di wax nekk un contre-pouvoir. de mu am mu am l'organisation de tout ça dans une parfaite harmonie c'est ça les de grandes démocraties tey Sénégal. Mhm. nañu dellu ginnaaw nañ ko nangu mais li am solo mooy ñun de am nañ yaakaar ni pour cette fois-ci ñi nga xam ne tey ñoo yore justice bi nangu ko avec na enjeu bi mu am. muy la stabilité de ce pays Sénégal bi nga xam ne foyer de tension yëpp yi ko wër dëkk yi ko yëri wër yëpp ay foyer de tension lañ taal Sénégal pour intérêt benn nit est-ce que loolu jaral na leen ko. d'accord di ngeen responsable demain devant les gens et devant Dieu. parce bu Sénégal tàkkee. képp ku fi dee rek na leen leer ne am ngeen ci responsabilité. on parle de responsabilité ñu gis ne aussi euh, Ousmane Sonko ci conférence de presse am bi ba tey euh, ay mots.